dal leen ak jàmm coow li doxoon ci séddale aide la presse bi ba léegi jeexagut journaliste bi di Ibou Fall te moom journal bi di la Petit Railleur moo déposé ab plainte jëmale ko ci comité bi nga xamante ni ñoo ŋànkoon séddaleem aide la presse bi ak ki nga xamante ni moo di ministre de la culture et de la communication di Abdoulaye Diop moom journaliste bi nag la mu leen di tàqal moo di détournement de fonds publics waaye tamit ginnaaw plainte bi nga xamante ni déposé na ko moom Ibou def na ay révélation doy waar yoo xamante ni ñu bëri ci askanu Sénégal umple woon nañ ko révélation yooyu nag ma ngi ko yëkkati jëmale ko ci ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Diop di ministre de la culture et de la communication bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar bi nag ki fi nekk jamono ji ministre de la culture de la communication boole ko nekk meerub Sédhiou ab jaaykatu cigarette la woon laata nit ñi di ko xam daanaka sax ñi ko xamoon ñu bëri Abou Diop lañ ko doon woowee journaliste bi nag xamle na ni lii moo waral ba saxaar doon circuler fu ne ci jamono ji nga xamante ni ñi ngi séddale aide à la presse bi maanaam lépp lu ministre de la culture bi jiite rek du jaar yoon nee na nag loolee la koy firndeel moo di département bi mu jiite chaque jour ñu gis ca ay pëccaxoo ju jëm ci wàllum gestion de fonds waaye journaliste bi tamit yamu ci xamle ne ni kii di Abdoulaye Diop moo daan fi sponsorisé ay événement yu bëri jaarale ko ci cigarette yi mu daan jaay yu ci mel ni excellence te yooyu événement nag bokkoon na ci élection miss yi nga xamante ni daan na am ci RTS te ki nga xamante ni moo ko tëggoon di Moïse Ambroise Gomis waaye it tamit euh, les colèdra c'est Iba ak soirée yi Omar Pène daan tëgg waaye tamit nee na bu ñu fàttalikoo ci année yi 2000 fa masaana tourné ci rond-point yi Ndakaaru yi yaa ngi gis ay kiosque yoo xamante ni ña nga cay jaay dënil journaliste bi di firndeel nii rek Abdoulaye Diop appréciation bi la am ci wàllum culture